maj ma daaira maj ma honoré ne kuréel gi màggal jaar gi Serigne Touba jaaroon Ndakaaru moo ñëwoon tey di siyaar Cheikh Mouhamadoul Mountakha kon ñu ànd ak yéen dugg ci biir saal bi. maj ma honoré ni Serigne Juga Ñang ay ko Ndakaaru leeral ko ñoom ñooy def ñaari guddi Ndakaaru. ba fanaanoon ca Ndakaaru. ren nag dafa dajeeg màggalu Daaru Kudus gi ñu bëgg koo tuxal ci ajjuma ak gaaw ba ca jëkk di la ak la quatorze gannaaw ba mbooloo mi dañoo am daara ca garage Daaru Muxti bëgg koo tegal xeer wu jëkk ca Husnul Maab tindoo di àjjuma ji ñu jëm waaw waaw waaw sëriñ Njuga sëriñ bi nee na dégg na kàddu yi bu baax a baax a baax a baax rawatina ci liggéey bu rafet boobu nga xam ne da ngeen koy def muy ñaari guddi Ndakaar wi nee na ànd na ko ak yéen ci liggéey boobu nee na mi ngi leen ñaanal yéen ñëpp suñ borom dimbali ñu bañ taw dajee tawfiix sëriñ Tuubaa seen lépp gën a yomb seen lépp gën a yéwén seen lépp gën barkeel na ñëpp tàllal seen loxo dox amiin tal waaye bëgg na ko ba ñaan auzu billahi min asheytaan irajim wa inni auzuha bika wa suriyataha min asheytaan irajim rabbi auzu bika mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tey ci teewaay bii nga xam ne moom ngeen gis ñu teew ko ci kër gu mag li ko waral nag mooy ma Majmahun Nurayni kuréel gi maggal jaar gi Serigne Touba jaaroon Ndakaaru moo ñëw di siyaar Serigne Mountakha di ñaan mu yàgg fi lool te wér du ñu guddal nag dañuy jox jëwriñ ci Baye Ndiouga mu daal di leeral tey lu ñu indi fii ak lu waral teewaay bi bismillah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di jaajëfal ci teewaay bi nga xamee ne ànd nañ ko fii teew ñun ñi nga xamee ne ñun la yàlla dogal ñu agsi fii fi kanam sëriñ bi ak suñ mbokki taalibe ya nga xamee ne ñoom lañ bàyyi ca sowu jant ca ndakaaru ak suñ mbokki taalibe ya nga xamee ne ñoo nekk fële ca Bamako ca réewum Mali te sëñ Mor Jaañ mi teewal leen fi ñu ngi leen di xamal ne tey jii ñëw nañ fi sëriñ bi andi fi ay kàddu yoo xamee ne moo doon jébbale suñu addiya ci liggéey bi nga xamee ne moom lay liggéeyal sëriñ Touba muy barab bi sëriñ Touba waxoon ne bil Mustafa lii banal quddus madrasatan biha yusulul asa wal jaalu wal kabadu bi ñëwee nag mbooloo mi nekk Ndakaaru ak mbooloo ma nekk Mali ba ñu dajalee seeni i doon na ñaari million ak téeméeri junni muy deux millions cinq cent biñ ñëwee it yëkkati nañu addiya jooj yi jox ko sëriñ bi boole kook ab leetar yu toftal ay kàddu sëriñ bi it tontu nañu ab leetar yu toftal ay kàddu kàddu yi nga xamee ne moom lañu xamal sëriñ bi moom lañ ko wax mooy dañ ko wax ne ko maj mamu nuuree ni di kuréel gi màggal yaari guddi yi sëriñ Tuubaa fanaanoon ndakaaru ñoo ñëw tey jii ngir siyaare si la ànd ak seen mbokki taaliba yi nekk ni andi seen addiya mu toll ci ñaari million ak téeméeri junni xamal ko it ne ko gannaaw loola dañoo ñëw ngir li yees lu suwaat ndigal ngir yaari guddi yi ndakaaru yi ren jii dafa daje ak màggaluk daaru xuddoos gi te màggalug daaru xuddoos gi mooy bis bi sëriñ Touba ñibbisee ak Touba ñu amoon yéeney tuxal ko ca ajjuma ak gaaw ba ko jëkk te mooy la treize ak la quatorze sëriñ bi xamal nañu ne ànd naag ñun ci doxaliin woo wii gannaaw ba it àgge nañ ko loo xamee ne lenn ci mbooloo mi xamoon nañ ko waaye lenn ci mbooloo mi umpule nañ ko ndax xam ngeen fukki at ngi ñii ci ren nekk goo gii ñu nekkoon ak yéen foofee fa ndakaaru saa suñ ñëwee rek buñ laajee bàyyi njuga ñu ne ma nga Touba fii ñu nekk ci Touba nag yéen ñii seenu njaboot lañ taxawaloon daara ngir man leen faa tàggat tollu ci fukki at ren jii nag daara joojee ñu war koo toxale ca garaasu daaru muuti yóbbu ko fa ñuy wax tindoodi mooy husnul maab moom la suñ Touba wax ci moom la suñ boroom wax ci alxuraan ne la siina amanoo wa hamilu saalihaati tuuba lahum wa husnu maadin moo tax bi sëriñ tuuba sancee tuuba jox ndigal sëriñ muhammadul moustapha ngir mu sanc husnul maab husnul maab googee nag fa lañ war a tuxal daara ja ajjuma jii di ñëw la ñuy teg xeer wu jëkk wa liggéey bii ñu nekkoon nag moo doon yitte ju joo xamee ne taxoon na bëgguñ ko woon a gaaral ci kanam mbooloo mi ndax mbirum sëriñ tuuba bu jubee ñëpp dañuy dëgmalu rek jëm ca lool bañ ko àggee ñaar yi tamit rafetlu na ko ànd ceeg ñun ñaanal ñu ci kon loolu mooy kaddu yu làmmiñ yi nga xamee ne moom lañ àgge sëriñ bi kàddu yim ñu taddu it mooy ànd na ceeg ñun te rafetlu na ko ñaanal nañ ci it leetar biñ ko bindi it nii la tëdde dañoo bind ci leetar bi ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yaa sayqina muhammadul muntaqa al mbakiyu xalifatu sayqina ahmadul qadim kuréeluk maj na on nuuré gi màggal ñaari guddi ya Serigne Touba fanaanoon Ndakaaru bi muy jëm ci tukki géej gi ñoo ñëw ngir siyaara si ak di indi seen haddiya mu toll ci deux millions cinq gannaaw loolu ñuy yeesluwaat ndigal ci màggalu ñaari guddi ya ngir ren ji daa tombeek màggaluk daarul xudduus ñu amoon yéene màggal ko aljumwa fukk ak ñett ak gaawu fukk ak ñeent ci weeru septembre ñu ciy sàkku ndigal gannaaw loolu ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool ba matale mbooleem li nga yéenee liggéeyal Serigne Touba. kàddu yañ ko waxoon tam mooy suñ mbokk ya nekk Mali ñoom ren jii dañoo am yéene màggal ko ci teru tam xarit wi ndax ñoom dañ daan def buñ màggalee ñun ba bis ba delsi ñoom ñu doog a màggal waaye gis nañ ne loola buñ ko defee day dugg ci weeru safar wi. te weeru safar wi lu ci dugg lu ne da cay daal di lab moo tax ñoom it ñu wax ne dañoo am yéene yi bu weeru tam xarit bi teroo rek ñu daal di màggal ñoom muy ñaar fukki fan gannaaw tabaski xam ne ren ñoom ñooy màggal ñaar fukki fan gannaaw tabaski bu amee ñaari ay bis ñun ñu doog a màggal kàddu yooyu yëpp nag àgge nañ ko sëriñ bi rafetlu na ko ànd na ceeg ñun jox nañu it leetaru tontu ak kaddu yu tontu kàddu yu tontu yi wax naa leen ko. leetaru tontu bi mi ngi nii daa wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu daairatu Majmahun Nurayni maa ngi leen di nuyu moom sëriñ Muhammadul Muntaxa lu bari lool te di leen sant bu baax ci seen pëstéef bi ngeen am ci liggéeyal sëriñ Touba maa ngi ñaan sunu boroom mu defal leen ak wir akuk yokku ba ngeen mën a jëf seen yéene ci liggéey bi sëriñ tu ci liggéeyub sëriñ Tuubaa bi gis naa hadiya ji mu toll ci deux millions cinq te mooy ñaari millions ak genn wàll jërë ngeen jëf wa salaam kon loolu mooy kaddu yi sëriñ bi tontu lii mooy kaddu yi nga xamee ne moom lañ ko wax la ca des nag positif la positif mooy ba ñu teewee ca Masaalikul Jinaan neewoon naa leen ren ji nañ jéem a góorgóorlu yokk ndax ñu yokk daaw joxe nañ un million cinq cent tey ñu joxe deux million cinq cent la tax ma wax leen loolee dama leen a xamaloon ne sëriñ mun Muntaxa day njëkk muy doon xalifab sëñ Touba bi weeru tabaski wi teroo laata ñuy àgg ca bis ba digganteem ak tabaski matul ayuk bis ñëwoon nañ siyaare si ko waxtaan ak moom ci ñaari guddi yii mu ne moom day am na ci yéene joo xamee ne la koy mën a tax a sottal yéeneen jooje mooy ñu fexe woon ba Cheikh Sidi Maxtaar yëkkati ci kàddoom te wax ji tàbbi ab noppam loola nag bañ ko defee ba dem siyaare ji seex Sidi Maxtaar ma nga daje woon nag le 10 août dajeeg bisub alximis ca la suñ ñaari jàmbaar ya daanoo woon ah wàcce woon ab liggéey tey tamuy sëriñ Birahim Guèye ak Serigne Mourtada Diagne keroog ba ñuy gis Cheikh Sidi Maxtaar fukki waxtu jot na ci guddi bañ ko gisee dañuy la la sëñ Muntaxa sàkku woon mooy ñu toog ak sëñ Sidi Maxtaar waxtaan ak moom ci liggéey bi lépp fam tàmbalee ca sëñ Saliou ba agsi fii bañ ko waxee Cheikh Sidi Maxtaar it dañoo xamal ne mboolem liñ ci bëgg danañ ko ca am bañ ñëwee wax ko sëñ Muntaxa bañ xëyee di ajjuma tombeeg sëriñ Abdou Fatah Mbacke gaynde ma jiitu ji sëñ mun Muntaxa dem Taïf di ko taxawu ji looloo taxoon daal di wuñ koy daal di àgge kàddu ya ca saasa ba ñu dellu si waatee nag toogaat yaari ay bis ca lañ delluwaat ca moom waaye boobee ña ngi ko fekk fee ca daaru mi nan booba nag daa am kaddu yu mu waxat teeg ñun te mooy yiineem jam amoon kàddu yooyee feeñal na ci ay mbir yu bari ci ay wax ak i jëf bokk na ci yem ci feeñal yéene jim amoon ci lëkkale ñaari guddi yi ak tijjite jumay masaalikul naan loola saayir la woon waaye saayir sa baatin bee ko ëpp doole ba mu ko yéenee ba yëgle ko ba yëgal ko ña ko fa nekkal ba ñooñu ñëw wax ñu ko ay gaawu lañ ñu ko wax dimaas ñu ñëw siyaari sëñ Muntaxa bañ ko ko waxee mu xamal ñu ne la cay sama yéene daal mooy nge ñu ngont fa ngont yoo xamee ne dana gàccayloo naqar wa yàlla dogal tijji tega ñu tuxal ko waaye loolaa tuxal màggal gi yóbbu ko Masalikul Jinaan lam ñu ca waxtaane woon nag ñun nag keroog daanaka waxtaan na ma matoon na fukki minute ak juróom te lañ ca mën a nettali ci mbooloo ëpp juróomi minute kon mbir mu yéeme am na ca biir wax ja moom nag lan ñu yéene suñ pëstéef moo ñu cay jotale bi ñu toogee Masaalikul naan nag ma ne leen sëñ bi ne nam mun nañoo jox caabi joo xam ne passe partout lay doon kale boo xamee ne foo dugal mu tijji loole nag pas-pas ak yéene moo ñu koy jox tey jii nag biñ ñëwee ba siyaare ko ba wax ak moom leetar bii mu ñu jox muy leetaru tontu ak leetar bii ñu ko bindoon ak barkeelu bii mu ñu jox ku ne ci ñun mën na cee dekkal ku dee bu ko Pastefam matee ku ne ci ñun bu ko sa Pastef matee mën nga cee dekkal ku dee dama jëlee nag la neen muy ñaari leetar yii ak barkeelu bii kenn ku ne ci ñun ñaari leetar yii ak barkeelu bii na la gënal sak ruu nag ku ne ci ñun fexe ba am ñaari leetar yi ak barkeelu bi di ko gegandoo kullu yawmin Sëriñ Tuubaa positif la nit yor na ci fépp sara wër ci àddina nit yor ci juur mënta jóge fi mu ne gis nga waa ji yore fasu naaru góor te amul positif ki yor mbaam te am positif saxa ko man ndax moom faaw muy kocc kocc rek faaw mu àgg boo amee fasu naaru góor te amoo positif boo doo yeewi fas wi bay war doo ko yeewi bay war kon positif bi la sëriñ bi nag jox nañu ndigal ñu weel liggéey bi nii nga xamee ne ni lañ ci dëppoo ànd na ceeg ñun noonu yi bu ko defee nag kon loolu mooy kàddu jiital yi ñu bàyyi sëriñ Mor Diagne mii fi teewal waa Mali allahumma salli ala nuril wa sirril asrar wa tixraaqil axyaar wa miftaahi baabil yasaar sayidina mamadin al muxtaar wa alil ataar wa saabil axyaar xadda dañaa miliyaay bi fi daal yi barki borom Tuubaa bokki soowu jant bu ñu nee soowu jant te jóge penku mel na ni kon penku la tàmbulee ba agsi soowu jant penku la ñu bàyyi ko ñëw soowu jant ci dëkk bu mag bi di Tuubaa ànd ak sunu bokk yoo xam ne nii danoo ànd di liggéeyal sëriñ Touba yàlla def nag nun ña nekk penku ak ñi nekk sowu nun ñëpp waa Touba lañ waaye nag dañoo bàyyi ko woon fii nun dem penku maanaam bànqaas bàyyi ko fii ànd ak nun nu di ci liggéeyal sëriñ tubaa xam naa nag mbooloo mi dinañ ma baal tuuti ndax ginnaaw jamono moom liy jotulee dafa bari nga xam ne mën naa am fi nu toll sax ñu nga toog ca Bamako tey jàkkaarloog nun wala ñu di nu dégg te nu nekk ci réew moo xam ne nii nag nun ñay taalibe yi te jóge fii la nuy wax kenn du ko laaj sa moroom waaye nag am na ñuy ñëw di nu ndokkeel ak di nu nuyu ak di nu siyaar te li ñuy wax duñ ko xam faaw dañ leen koy leeral kon yéen bokki taalibe yi ngeen jéggal ma tuuti rek nga xam ne wax bii bu ma koy wax su ko ñooñ a déggee ñoom duñ ko laaj kenn waxal ak ñoom asubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbal maw lislaamu assalaamu aleykum wa taala wa barakatu mali jamono sénégal jamono bii fo kosobe karama ko baa bii fo kosobe anni dakaru ba bi fo kosoɓe bay koni aw bora bamako a nana ka ci faye karamoxoye cini aya di kuntigi bay njuga jeng bay njuga jeng a lase uma karamoxo min sigi golola aw bele jele karamoxo bi fo mali jamono aw bele jele karamoxo bi duwawu ke mali jamono karamoxo a ya fo ko l'islamu jamono be a be kele sénégal ani mali a be kele bara min nana ñenala a kera million fula ani tila bara min bo mali ani min bo dakar e y'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ miliyɔn fila ani tila n balimaw banbaraw n'a y'a communiqué ni mɛn i b'a dɔn kɔni bi kɔni aw bɔra mali k'a na toba k'a karamɔgɔ di adiya la aw bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso aw fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ bi fɔ mɔni bɛɛ lajɛlen a bɛ dugawu kɛ kɛlɛ min bɛ mali la ko ala ka kɛlɛ sumaya ko baara min bɛ kɛ mali la ala ka barika don la ani cɛ ani baraji comme ni bɛ mali jamana la cogo cogo a bɛ bamanankan fɔ o bamanaden ta ye bamanani o dɔrɔn de don assalamu alaikum warahmatullahi taala n balimaw ye ko kitaali be na ma baal bu baax a baax am lii ñoom ñu nga toog nun te ñoom saa su ñu jisee lu bokk ci lii ci seeni télé sax dañuy daal di ñëw ca nun dinu laaj lu xew Touba tey. mi mina seytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyoo tey ziar tey ñaanal Seex Mudul Muntaxa mu yàgg ci sunu kanam lool nu yàgg ci ginnaawam di ñaanal sunu jëwriñ ji bàyyi njuga jëngit mu yàgg noo jiite. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant mbokki soxna yi ma àndal ñi ci ëpp di samay doom. ñu ànd liggéeyal sëriñ bi ma leen di soññ rekk ñu gën a yokkoo pasteefu ndax li nu am tey kat ak jagleeg sunu boroom la waaye ak njàmbaar mayewu ko lii ak njàmbaar mayewu ko de kenn ku nekk nag war naa gën a mën a takkuwaat bu baax soññ boppam te lii ab soññ la kenn ku nekk yaakaar naa ne boo jógee fii da nga gën a takkaar sak laxasaay gën a waaxu jëm ci liggéey bi liggéeyal sëriñ Touba. ndax loolu rek moo fi nekk sëñ bi doo nga fi nekk dara nekku fi lu dul sëriñ bi yàlla nañ tasee ngërëmal sëriñ Touba jërë ngeen jëf wasalaam. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lañ leen jëlali woon fii ci kër sëriñ Touba euh, di daaira euh, Majmahun Nurayni kuréel gi màggal jaar gi sëriñ Touba jaaran ndakaaru mu ñaari guddee ndakaaru ñoo leen jëlale woon lii ci kër sëriñ Touba doon siyaar mu Mouhamadul Mountakha kon ñu ngi ñaan suñu boroom subhaanahu wa suñ boroom may ñu jàmm ak xéewal ci barkeb xasaayid yi jërë ngeen jëf kon waa académie ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bismillahi fiinin ak daala yàllaw safi baqa abi bi fiq yàllaw yaa man lawol amru yaa man laa sharika lahu وفي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي بزال يا مليكي